إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال ربكم عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان عباد الله لقد أزلنا أيام عظيمة وساعات قليلة إنها أيام العشر الأواخر من رمضان وهي بداية نهاية الشهر العظيم ولها مزية على باقي أيام الشهر ومن مزاياها وخصائصها اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيها فوق ما كان يجتهد في غيرها من أيام الشهر كما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الأش إذا دخل الأشهر الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر رواه البخاري ومما أنعم الله عز وجل على هذه الأمة ليلة وصفها الله عز وجل بأنها مباركة ومن بركتها أن هذا القرآن الكريم أنزل فيها ووصفها الله عز وجل بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم وكل ما أراد الله في تلك السنة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين وقال تعالى عن هذه الليلة العظيمة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل, من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي رواه البخاري ومسلم eyeen mbokk jullit yi ñu ngi sant sunu boroom subhaanahu wa taala ci xéewalam yu màgg yi ñu ngi koy gërëm ca di ko jéggulu ñu ngi seede na yàlla rek moo yeeyoo ñu koy jaamu di seede na yonentam ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci moom rek la ñu war a royee jaamu yàlla mbokk jullit ñu ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla ngeen góorgóorlu ba kenn ci yéen bu mu dee mukk lu dul ba muy dee mi ngi jébbalul boroomam subhanahu wa taala borom boobu nga xam ne tagg na xéewal gu màgg gi ñu nekke muy weeru koor mu ne cey weeru koor a ngoog ak màggaayam weeru koor bi nga xam ne ci la ñuy wàcce alquran muy njub ñel nit ñi nekk lay yu leer nekk luy teqale diggante dëgg ak fen mbokk weeru koor boobu nañu xam ne mi ngi nii tiim ñu la nga xamee ni nii mooy ay bis yu màgg lool ay guddi yu néew lool te mooy fukki fan yi mujj ci weeru koor loolu nga xam ne mooy tàmbilib jeexitalu weer bu màgg bi mu am ay ngëneel yoo xam ne yeneen bis yi amuñu ko bokk na ci ngëneel yooyu sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam day daana ci góorgóorlu góorgóorlu lu raw lam daan góorgóorloo ci yeneeni weer ki ko gënoon a jege di sunu yaay Aisha radiyallahu anha nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu doon fukki fan yi mujj ci weeru koor ñëw na day day dundal guddi gi yépp ay mboolem guddi gi du ko nelaw day tamit yee waa këram yépp pour ñu ànd ak moom di jaamu yàlla day takk làmbaayam ay mooy dootu jege ay soxnaam mbokk julit xam leen ne bokk na ci xéewal gu rëy goo xam ne sunu borom yàlla jagleel na ko xeet bi muy benn guddi boo xam ne sunu borom moo ko melal ne guddi la gu barkeel bokk na ci barkeem bu màgg boobee ca la yàlla wàcce woon ay kàddoom kàddoom yooyu nga xam ne mooy la gën a màgg tey lu ñuy gis ci kaw suuf sunu borom yàlla melal ko it ne guddi la goo xam ne ca la ñuy teqalee bépp mbir lépp loo xam ne yàlla namoon na ko ci guddi googu la koy dogal xamal ne dogal dafa nekk ay étape am na dogal boo xam ne lii nar a xew ba ilaa yawmi diin yàlla rek moo ko xam waaye sunu borom yàlla guddig laylatul qadr gu nekk dana woo malaaka yi malaaka bu nekk la nga xam ne moom la yeyoo mu wax ko ko am nañ koo xam ne nii moo garde listu ñu war a judd ci biir at mi ñooñu ñëpp dañ leen koy wax mooy xam leen ne kaw suuf lu jege peut-être cent millions ou deux cent millions de doomu aadama war nañ caa judd diw diwoo ko war a jur diw diwoo ko war a jur kii moo war a nekk góor kii moo war a nekk jigéen waaye guddi googu it la malaaka yi di xam liste ñu nar a dee ci at mi tant de centaine de millions dañ dee diw ak diw ak diw jox leen liste bi au complet liste boobu ku ci bokk dara mënu la caa génne waaye ku ci bokk li dara mënu la caa dugal ñey nar a dugg ci sëy ca la ñuy ca la ko malaaka yi di xame ñey tas ca la ko malaaka yi xame ñey tukki ñey jóge ci tukki waaye mbokk ñi nar a texe dugg aljanna ak ñi nar a alku tabbi sawara keroog la ko malaaka yi di xam ci guddi gu màgg googu di guddi laylatul qadr sunu borom yàlla ne ca la doon guddi goo xam ne ci la ñu doon xuppe ca lay teqalee bépp mbir boo xam ne nii mbir bu xereña la mu wëlbati ko waat ci guddi googu ba tey ne alquran yi ngi ni ñoo ko wàccee ci laylatul qadr lu lay xamal laylatul qadr loolu rek doyoon na ko ngëneel suñu borom bu yemoon rek ci ne lan moo lay xamal laylatul qadr rek daañu xam ne mbir la bu rëy bu màgg ci yàlla jalla wa ala waaye sunu borom yàlla subhanahu wa taala daal di koy leeral daal di ne moom day moo gën junniy weer loolu kon mbokk guddi gaa ngi nii nekk sunu kanam di guddi goo xam ne ca la yàlla wàcce alquran muy benn ngoog tey jii bu dee ne nation yi boo mën a dem am nañ benn bis boo xam ne dañ koy jagleel feet jagleel ko màggal bu doon sénégalais dañ naan 4 avril la loolee mbokk da ngay gis loolu lu am la boo demoo ñit ci nit ñi ci ak seeni bëgg-bëgg da ngay gis ku nekk am na benn bis boo xam ne ca lay màggal sëñ diw ndax am na xew-xew yu ci sëñ diw defoon am na koo xam ne bis bi lay màggal cantug diw ndax kooku am na lu mu ca defoon tey jii da ngay gis lu ëpp ci jullit ñi ñi nga màggal juddi ah guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ca la yonent bi alayhi salaam juddu woon mbokk waaye xoolal yonent bi ba mu juddoo quarante ans mi ngi koy dund ci kaw suuf njubug lislaam amul ci kaw suuf ña fekk woon juddoom dund ak moom ñu ci ñoom ñëpp presque dee nañu xamuñu luy lislaam waaw gars yi ndax juddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daañ ko méngaleeg laylatul qadr bi nga xam ne mooy alquranul karim depuis ba mu wàccee la yàlla taal ab jant ci kaw suuf képp ku bëgg jubati xam foo jaar ndax ñaar yooyu des na ko mën a méngale abadan doonte ne mbokk doomu aadama yi commencé ba ñu commencé ci mbir daañ ko jëme rafetal daañ ko jëme défendre waaye bu yàggee ci seeni xol rek dañ ko màggal loolu tax bu njëkk daanañ dégg gàmmo de bu dee biddaa it biddaa bu rafet la waaye léegi sunu at yu mujj yi lan la ñuy dégg mooy gàmm moo gën laylatul qadr wal iyaazu billah gàmm moo gën laylatul qadr amul lu tax ngeen wax loolu ñu ne alquran moo tax laylatul qadr am njëriñ ca bu muhammad judduwul woon alquran du wàcc kan moo leen wax bu muhammad judduwul woon alquran du wàcc mbokk sunu boroom wareef la ci moom mu jibal ay xeetam loole da ngay gis ne jiitu muhammad yónni na ay junni junni junni yonent loolu moo tax ba naka sunu boroom ndax daa fàtte jamono bi mi nga xamee ne nii xéewalug mawlud nabi moo gën foofu laylatul qadr suñu borom ne ko fa ñukk ñu kooral dañuy taggal guddi goo xam ne nee na moo gën junniy weer ca bañ ñoo wax nga neelu ah guddi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngan la waay mbokk julit loolu ëpp naa def loolu xaw naa nekk weddi alquran ca weddi alquran musiba bu rëy moo ci nekk kon xamal ne laylatul qadr mi ngi nii la jara màggal la jara fonk mooy lan mooy guddi googu sunu borom ne nga daal di koy màggal dana méngoog junniy weer junniy weer mooy juróom ñetti fukki at ak ñett benn waay bu ko saxoon di ko jaamu yàlla yow jaamu yàlla ga la yàlla nangul ci guddi gi leelatul qadr yow yaa ko ëpp tuyaaba fuuf mbir bi kay mooy kon léegi lan ngay laaj mooy ñun bu ñuy màggal 4 avril xam nañ nuñ koy màggale buur ba dana dajeeg ña ko ña ko wër armée bi défilé gannaaw ba ñu feetu noos waaye mbokk la nga xamee ne moom la ñuy màggale leelatul qadr wala mbooli mi jaamu yàlla ka nga xam ne moo koy jàngale kenn rek la mooy sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhammad moomu laylatul qadr mus sa ñëw mu woote gaa yi ne nañ tànt nañ rey ay nag nañ togg ay cere commencé sikkar di jaayoo ko fettaxu ba baa fajar jot yonent bi alayhi salaam musul woote loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga xamee ni nii noonu la doon woote laylatul qadr mooy la sunu yaay aïcha radiallahu anhu an anha nettali mooy guddi gi yépp danaan takk lambaayam soro ay soxnaam daa di taxaw ànd ak njabootam ga di jàng alquranul karim boole koog ruko ak sujud boole koog jooyeeg toroxlu ci kanamu borom bi subhanahu wa taala nii la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon màggale leelatul qadr ay yéen mbokk julit bokk na ci ngëneelu guddi gu màgg googu sunu borom mu ne malaaka yi daañu wàcc jibril alayhi salaam dana wàcc wallahi tey gis ngeen ne président amérique bi fi mujjoon ñëw mooy George Bush perturbé na complètement suñu réew mi lépp lañu bloqué boo demoon waa Gorée dañ leen a tëj seen biiri kër defaraat mbedd yi rafetaadat yépp ca amu fi sax la nga xam ne mooy ñaari fan loolee mbokk da ngay gis ne malaaka yu tedd yi nekk kaw asamaan ànd ak kilifa gi gën a màgg ci malaaka yi borom bi muy jibril alayhi salaam guddi gale sunu borom di yebal dem leen ca kaw suuf ànd ak sama jaami yàlla nit ñi di ma sabbaal ak màggal mbokk même bu doon dara xewul woon ci leelatul qadr lu dul loolu rek nekkoon guddi gu jar a fonk guddi gu jar a màggal waaye dëppale ko ak na ko sunna santaane sunu borom mucc daal di ciy mujj tëj ne moom day léppam mucc la léppam jàmm la ba baa fajar di jot ca mooy lépp lu ci jaam bi jaamu yàlla xamal ne bunt la bu koy jéggal ay bakkaar bunt la bu yëkkati darajaam bunt la bu koy musal ci sawara bunt la bu koy tabbal aljanna ak jaamu yàlla boobu lépp lépp lu mu tuutee tuutee maadaama dëppoona ak sunna kañ la laylatul qadr laylatul qadr mbokk julit dañuy gis ne tegtal yi te ñëw day wuute na lool waaye yow mi nga xamee ne yow yaay gëstu sunna da ngay gis ne bokk de tegtal yi ca gën a màgg mooy guddik ñaar fukki fan la ak juróom ñaar ci weeru koor ay bu ñu waree ñaar fukki fan ak juróom benn ba ca guddi ga loolu mooy tegtal ya ca gën a matale waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom naka la daan def daana ñaax jullit ñi ne mi ngi ci fukki fan yi mujj ci weeru koor looloo tax ba sunu borom ne ngan la waay bu leen jege seen soxna yi fekk yéen a ngi def itikaaf ci jàkka ji itikaaf mooy lan mooy daal di bàyyi sa activité adduna yépp daal di génn sa njaboot dem toog ci néegub yàlla ba daal di wét ak sa boroom loolee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngiree guddig laylatul qadr bañ ko raw heure bu weeru koor masaan des fukki guddi day dem daal di féetewoo la nga xamee ni nii moom mooy jàkka ja génn kër ga complètement daal di wét ak la nga xam ne mooy boroomam loole yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk na di ko def am na lenn ci ay soxnaam yu mu daan àndal di ko def ba mu fi jógee soxna yonent bi continué nañ di ko def ca jàkkaam ja ba ñu faatu kenn par kenn ba jeex radiyallahu anhunna mbokk julit fukki fan yu màgg yooyu ñi ngi koy séentu altine bii di ñëw ay altine ca guddi bokk na aada tey jii boo demoon ci jàkka yu àdduna bi yépp la nga xam ne daanañ ko def ci naafila weeru koor yépp daañ ko gën a yokk gën koo màggal loolu moo tax ba nekkoon it aada ci jàkka ji heure bu fukki fan yi mujjee daan jéem a góorgóorlu di fi daje ci heure ba naafila gëne naafila ba gën ci naafila yi mooy la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon afdalul qiyaam qiyaamu daawud kaana yanaamu nisfa leyl wa yaqumu sulusahu wa yanaamu sulusa mooy yonent yàlla daawud moo gënum daan naafila da daan nelaw ba xaaju guddi mu jóg taxaw ceeru guddi ga nelawaat sixième ba looloo taxit fii dañuy fii woote une heure du matin nga la waay ab julit bu dee ngant amul dix heures onze heures war na laa fekk nga tëdd su ko defee une heure du matin incha allah la ñuy commencé naafila yi fii di jéem a jàng téere borom bi ba baaboori quatre heures quatre heures et demi ñu daal di jeexal ngiree yàlla dogal guddi gu nekk daañu fi wàcce lu mu bon bon la nga xamee ni nii mooy juróom benn xisib ca tiirab yàlla bi subhanahu wa taala ba baabu weeru koor gi jeexee fekk na jeexal nañ kaamil bi loolu nag mbokk ni ngeen ko dégg sànq a rasul salallahu alayhi wa sallam képp ku masaan julli ci këram go ku masaan mën a julli ci këram góor nga jigéen nga xale nga ndaw la ngan la waay war ngaa góor góorlu jéem a roy famille yenente boobu mooy yéen góor yéen jigéen ku ci yàlla may nga mën a ñëw ci néegub yàlla bi ànd ak jaamu yàlla yi julli ngal la waaye na nga def loolu bokk na ci àqu jëkkër moo di ne ne am na droit tere la nga xamee ni ni soxnaam lu bare bare bari waaye exceptionnellement jàkka yàlla ja sunu borom yeneen sunu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ni laa tamna'u ima allahi masajid allah ay waay yéen julit ñi bu kenn ci yéen soxnaam jóg na maa ngi dem ca jàkka yàlla ja mu di ko tere loolee kon képp koo xam ne mën na koo taxawee nga laway na ko taxawee mbokk weeru koor de mi ngi nii di weeru gaat nga gu rafet di weer woo xam ne moo goreloon jullit ñi démb bi yàlla wàccee téram bu màgg boobee ca la doomu aadama yi goree ci jaamu leneen lu dul yàlla daa di continuer jaamu sunu borom subhanahu wa taala keroog ku mel ne ñoom bilaal ñi nga xam ne ñoo bàyyi ma yo ñoo yemoon xamuñu lu dul déglu seen ndégalu sëriñ lum leen seen ndigalu boroom mooy ñi leen moom ci ay nit lum leen sant ñu def ñu leen di jaay ko jënd gis nañ ne bi alquran ñëwee moo leen goreel goreel ci ne ah yow kat sang yaay sama sang waaye munoo maa digalati ma def lu dul lu yàlla bëgg munoo maa tere lu dul lu yàlla xaraamal loolee taxoon na doon nañ leen ci mbugal mbugal yu tara tara tara tar waaye teewul woon dañoo siggi woon daa di dëgër loolee yëkkati leen loolee goral leen ba nga la waay yéen jullit ñi xam leen ne diine lislaam mooy diine góor ak jigéen te ki jëkk a joxe ruuxam ngir lislaam taxaw kookee mooy kan mooy sumayya nga xam ne mooy soxna yaasir ba lislaam ñëwee mu dugg ci abi jahal moo ko moomoon ñëw di ko mbugal guddi ak bëccëg ci ne génnal ci lislaam lan la ko doon tontu loo bëgg ci liggéeyu àdduna day ba ma ko sante ma def ko waaye amma diine lislaam ji déema ma gënal génn ci abu jahal mbugal ko mbugal mbugal ba benn bis la ñëw jël xeejam ba dóor ko ko ci biiram ba mu wàcc ba ci suuf kookoo jëkk a faatu ci lislaam ngan la waay mbokk loolu misaal la boo xam ne boo koy déglu yewit góorgóorlu bu weeru koor ñëwee na la goreel ci nga nekk jaamu xaalis na la goreel nga nekk jaamu njaaloog na la goreel nga nekk jaamu sport na la goreel nga nekk jaamu politique na la goreel nga nekk jaamu kenn koo xam ne ne kilifay àdduna la na doon général la ministre la ku mën a doon xamal na yow jaamu yàlla nga subhanahu wa taala képp koo xam ne da nga koy topp da nga xool mbaa li ma koy toppee nekkul mooy yàlla su nekkee mooy yàlla nga bàyyi ko lii mbokk weeru koor loolu la ñuy fàttali yal na yàlla xamal ñu la taxoon weeru koor jóg la ci sunu war a gor yal na yàlla wërsëgal ñu taxewe ko te yàlla nangul ñu ko nangul bépp julit wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad الحمد لله الذي أنزل في كتابه العزيز وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دآن فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله إن الدعاء عبادة عظيمة غفل عنها بعض المسلمين وتهاونوا في أمرها وهو حبل وهو حبل الموصول وأروة الم وأروة الوثقى مع الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل ولا يرد القداء إلى الدعاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ وقال تعالى ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب أي mbokk jullit yi ñu ngi sant yàlla mi wàcc ci téeréem bu tedd bi na yow yonent bi samay jaam buñ ma lay laaj ne leen man ku leen jégalaa maa ngi taxaw di ah yàkkamti nangu wuyu sama woote jaam boo xam ne mi ngi may woo waxal jaam yi ñu wuy si ma ci li ma leen digal ca ñu gëm ma na may borom kàttan su dee bëgg na ñoo bokk ci ñu jub yàlla mooma ñu ngi seede ne amul kenn ko yooyu ñu jaamu ko ku dul moom muhammad jaamam la yonentam la yàlla yàlla julli ci moom ak njabootam ak ña koy roy ba ila yawmi diin ay yéen mbokk jullit yi xam leen ne weeru koor a ngi nii sunu borom dugal ci ne nañ ko ñaan ci biir aaya weeru koor loolu day jàngale ne nekkate ñaan jaamu yàlla gu màgg la waaye bokk na lu metti lu bari ci jullit ñi tey sàggane nañ ñaan wala xamuñu nu ñuy ñaane ñaan googu mokk mooy buum gi la jokkale ak sa borom mooy njàpp gi gën a rëy gi ñuy jàpp ci yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne jaamu mboolem ñaan day mboolemu jaamu yàlla daalika mooy ñaan kese julleeg woor ak aj ak yépp ñaan yàlla gërëm ñu la musal ñu ci ay mbugalam sunu borom yàlla moo ne ay yéen samay jaam ñaan leen ma su ngeen ma ñaanee dama may leen ña nga xam ne dañu rëy rëy lu bañ maa jaamu ñooñu daañ dugg sawara sax fa ba faw loolu muy wane ne ñaan jaamu yàlla la yow mbokk jullit xamal ne la nga xam ne ñëw na ci yow ñaan da cee am jeexital xéewal wàcc na ci yow ñaan ga ngay ñaan yàlla barkeel ko ñaan yàlla saxal ko ñaan yàlla sàmm ko day yokk xéewal gi ci yow waaye natt dal na ci sa kaw feebar laam ñàkk laam jaaxle laam tiis laam lu mu mën a doon ñaan nga ngay ñaan yàlla subhanahu wa taala day woyefal loolu bal day teggi loolu sunu borom yàlla mooy dogal lu ko soog waaye mooy nangu ay ñaan amul lenn loo xam ne mën na teggi dogalu yàlla ci jaam bi lu dul ñaan goo xam ne da koo ñaan yàlla yàlla daal di koy nangu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ay waay dee leen ñaan yàlla ca seen xel dal ci ne yàlla nangu na leen xam leen ne nag yàlla du nangu xolu koo xam ne dafa sàggan kon booy ñaan yàlla jublul sa boroom daal di xam ne yow kat ab jaam nga benn ngoog ki ngay ñaan mooy ki am lépp sañ lépp ca tabe ci lépp ca it mooy ka nga xam ne moo la sant nga ñaan ko loolee kon da nga xam ne da nga ko war a ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal ñu ne amul kenn koo xam ne dana ñaan yàlla lu dul yàlla dana ko may la mu ñaan wala mu fegal ko lu gën la mu ñaan wala mu jox ko lu gën la mu ñaan am na it beneen boo xam ne moo dàqati doomu aadama bi dana ñaan yàlla yàlla nanguwu ko yàlla jël payu ñaan gi denceel ko ko ba yowmal qiyaama mbokk loolee di ngay gis ne moom mooy la dàqati su ko defee kon yow julit góorgóorlul ci sa kemtaleel kattan di toroxlu di ñaan yàlla waaye lu ñuy ñaan yàlla ndax mooy kër ak oto ak sëy bu neex ak kaza wa kaza mbokk xamal ne la jiitu ci la nga war a toroxlu di ko ñaan yàlla mooy yàlla jubal la ala siraatul mustaqim teg la ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxal la ci ba rey la ci yal na yàlla defal ñu loolu waaye mbokk bokk na ci la ñuy lu gën la ñuy ñaan yàlla mooy ñaan yàlla bëgg yàlla bëgg yonent yàlla ba yàlla ak yonent bi gënal la leneen lu dul loolu ngir nga bokk ci ñi yàlla bëgg yal na yàlla defal ñu loolu bokk na lu ñuy ñaan yàlla subhanahu wa taala bakkaar yi nga xam ne mënuñu cee mucc ngay toroxlu ci kanamu yàlla ay yàlla la nga xam ak la nga xamul ay yàlla la nga tey ak la nga juum yàlla yal na ma baal mboolu mi bakkaar yal na yàlla defal ñu loolu waaye mbokk bokk na ca ba tey ngay ñaan yàlla may la li nga xam ne mooy mujj gu rafet doomu aadama loo mën a nekke na doon ñàkk la na doon lum mën a doon ci réer na doon lum mën a doon la am solo rek mooy mujj ga loolee tamit nga war a góorgóorlu ñaan yàlla yàlla may la mujj gu rafet defal la àjjana sa wàccuwaay musal la ci sawara yal na yàlla wërsëgal ñu defal ñu loolu waaye mbokk ñu bañ a fàtte yi tamit nañuy ñaanal sunu wayjur yi ña nga xam ne ñoo ñu ca jiitu nañuy ñaanal sunu njaboot doomu aadama defaloo sa gën lu mel ne ña defaloo sa njaboot lu mel ne ñaanal ko am na ñaan yoo xam ne yàlla du ko dàq mooy ñaan gu way jur ñaanal njabootam waaye sa mbokk jullit yi sawaaun ñi la jiitu ci biir suuf wala ñuy dund ak yow ci biir suuf ngan la waay bul fàtte di leen ñaanal ñaanal leen mooy ñaanal sa bopp loo ñaanal sa mbokk jullit malaaka dana la tiim ne la amiin waaye yow it yàlla yàlla wërsëgal la li nga ñaanal sa mbokk jullit bii te yéegu ko loolee mbokk mi ngi nii moom la doomu aadama bi war a góorgóorlu jéem a moytu it lépp loo xam ne dafay jur yàlla bañ a nangu sunu ñaan ca mbokk loolu la ca gën a màgg gën ca am solo mooy la nga xam ne mooy lekk lu xaraam lekk lu xaraam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na benn waaye nga ne di tukki et pourtant ku tukki yàlla day nangu ñaanam ma nga yëkkati ay loxoom et pourtant yàlla rus na jaam bi yëkkati ay loxoom ci tegu ci dara waaye lam lekk daa xaraam lam sol dafa xaraam sunu borom yàlla yonent bi alayhi salaam nee na kii nu ko yàlla di wuyoo loolee mbokk nañ ci góorgóorlu nañu góorgóorlu rawatina sunu mbokk jigéen ñi ngallaawaay bu ñuy ñaan nañ ñaan yàlla kese aka doon jullit bu ñàkk fayda ñàkk fulla yow nga am soxla ci sa kanamu boroom nga dem fëgg benn ah sëriñu néegu tariyaax daal di koy tuuru ci moom wax ko sa biir wax ko sa biti wax ko sa lépp ngiree moom mu defal la ñaan gu ko réglé et pourtant bala yàlla y bind sa biiru yaay moom fan la nekkoon bi la yàlla màggal ba nga toll noonu fan la nekkoon loolee mbokk ëpp naa def ab julit jaamu yàlla nga nga la way xamal ne sunu borom ñun ñépp la woo ña ca baax ak ña ca bon ñépp ñépp ñépp la boole woo nañuy góorgóorlu jéem a ñaan yàlla subhanahu wa taala ñaan googu amul lenn lu yàlla subhanahu wa taala gën a bëgg jaam bi def ko lu mel ne ñaana ko ndax loolu mooy màggal yàlla xamal na yàlla kat lii ma bëgg yow rek yaa ko mën a def yonent bi alayhi salaam a ko wax nee na mboolem xeeti yàlla bind malaaka yi daje woon yonent yi daje nit ñi daje ñu bëgg laa jox dara lu yàlla tuddul ci yow loole du mën a sotti waaye malaaka yeeg nit ñi jinni ñëpp daje bëgg laa xañ lenn lu yàlla dogal ci yow loolu du mën a sotti looy ñàkk a fayda dem di sukk ci keneen ku dul yàlla kon yow jigéen bi yow góor gi su dee am nga soxla sa boroom jàppal njàpp mu sell wala bàyyil ba julli sa farata ba pare toroxlu ci kanamu yàlla yàlla yaa xam xawma yaa man mënuma yaay borom ngëneel yaay borom yërmaande daal di koy wax soxla ba nga xam ne bëggu nga ko nga la waay góorgóorlu leen ci loolu sunu borom yàlla mu ne aman yujibul muttarra isa daa wa yakshifu suua wa yajalukum xulafaa al ard a ilahun ma allah ma xoolal ki nga xam ne nit ki bu jaaxlee ba woo ko mu wuyu ko même bu doon yéeféer la nit ki bu jaaxlee ba woo ko mu wuyu ko même bu doon yéeféer la teggil ko ay lorom ndax ku mel nii war nañoo am keneen kuñ koy bokkaaleel mbokk jullit déedéet abadan ala kulli xaal mbokk ñaane ngi noonu su ko defee it moytul comme niñ ko wax sànq sa ñaan yépp yi yem àdduna del bàyyi xel na àdduna jaarukaay rek la du dara mën naam sax guddik tey nga génn ko waaye lay mbir ma dëgg mooy àllaaxira moo tax sunu borom ne sama jaam yi day am na ci ñu may ñaan am na ñu ma ci ñaan guddeeg bëccëg waaye ñaan yi mooy lan yàlla sama soxna si sama kër gi sama oto sama examen sama tukki sama kasa mbiri àdduna rek la ñuy ñaan yàlla waaye am na ci ñoo xam ne nii day ñoom fu ñu toll ñu nga naan yàlla yàlla nañ ñu tànnal la gën ci àdduna tànnal ñu la gën ci àllaaxira te musal ñu ci sawara muy ñaan goo xam ne yaakaar naa ne julit lum saggal saggal war koo man rabbana atina fi dunya xasana wa fil axirati xasana wa qina azaba annar yàlla yal nañu tànnal ci àdduna ngëneel tànnal ñu alaxira ngëneel musal ñu ci sawara lii mbokk da ngay gis ne mooy la gën a baax ci lu ñuy ñaan gannaaw ba ñu ñaanee la nga xam ne mooy tamit suñu mbiru ah mbiru àdduna su ko defee ñu góorgóorlu suñu kemtaleel kattan ñaan yooyu bëri na ay place gannaaw julli ca la bokk xaaju guddi ca la bokk diggante na dég li xam ca la bokk bis bu màgg bii ca la bokk waaye xamal ne bokk na la ca gën a màgg mooy guddig laylatul qadr sunu borom mën naa xañ jullit bi ay ñaan ci place yu bëree bëree bëri waaye bu ko yàlla déppalee guddig laylatul qadr lu mu ñaan yàlla may ko su ñooy Aïcha laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw su ma xamoon tey laylatul qadr lan nga bëgg ma ñaan ko mu ne ko da nga naan allahuma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni yàlla yow day yaay jéggale te da ngaa bëgg di jéggal say jaam yàlla yàlla na nga ma jéggal soo ko mënul dee ko wax ci wala foo mën a toll guddi goo mën a toll ci guddi weeru koor yàlla yow da ngay jéggale te da ngaa bëgg a jéggale yàlla yàlla na nga ma jéggal mbokk la ñuy jeexal sunu xutba weeru koor a ngi nii day xaaj na ma nga jëm ca jeexital ba jeexital nag ñi ko moom moo ñu ragal yàlla yàlla bind noonu àdduna da ngay gis lu mat un million de élèves bu ñu duggandoo ren école noonu la ñuy dem di wàññi ko primaire da ngay gis la ëpp daan wàcc gannaaw ba di wàcc di wàcc di wàcc ña cay dem université ñu ne weeru koor bu ñëwee ñëpp ay riirandoo jàkka yi feesandoo lépp ñëpp duggandoo waaye da ngay gis ne ña yàlla may tawfiq may leen dëgër ñoom rek ñooy sax ci weeru koor ba mu jeex yàlla na yàlla saxal ñu ci weeru koor ba mu jeexal ko weeru koor wii nga xam ne mi ngi jeex yal na yàlla yokk ci sunu jaamu yàlla yal na yàlla yokk ci ñu gën koo jege yal na yàlla tànnal ñu ci tànnal ñu ci la gën la muy wàcce ci biir jullit ñi waaye yal na yàlla teggil ñu ci lépp musiba boo xam ne da koy teggil la nga xam ne mooy jullit ñi yal na yàlla tànnal ñu ci àdduna la gën tànnal ñu ci àllaaxira la gën baal ñu sunuy bakkaar yërëmal ñu sunuy waajur jubalal ñu sunu njaboot jéggal ñu mboolem néew yi nekk ci biir suuf may ñu mujj gu rafet ñun ñëpp mu defal ñu àjjana sunu wàccuwaay ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين